metti ci sarasala man bëgguma kaani maa ci ko bopp mburu bi mer bos bi doy na mer delloo dooma man bëgguma poobar Thank you.

noppatu kon yow bagage yi maa ci buru eh eh noppatu noppatu arrêté sa ngay def noppatu bàyyi boo ñuy indi wuy ma da góor nag du feebar di déliré yow lu la jot. damaa si bëru. loolu kañ la xanaa démb man wàccee na. démb démb démb. ay garab ba jël nga ay kii yooyu. naan ma dara yoruma dara. dugal ma jox la nga dem ci hôpital bi. hôpital bi yëpp ay métti. waaw dugal waaw la ñu ñëw waaw. man ku bu yàgg maa ngi tëdd kër ga rek di ku ne nu may xaar nga ranger bagage yi ba ba ci kanam massa waay massa massa massa massa waaw kay massa dugal dugal dugal. jàppaloo ba day métti. massa massa dugal dugal dugal massa. te nga kon kon nan dem nan dem ma yóbbu la fi. ah déedéet déedéet. koy métti. waaw massa tànk ba bët ba gémmiñ nga bakkan ba. boo noppi rek feebar bi wàññeeku. waaw waaw ci la tànk bi dama di ñëw. boo noppi nga bàyyi wax ji nga dem di ñëw. waaw. bu ñëwee dama feebar wat. del wax rek damaa jomm sax moom man naka jëkk ma xam ne su tey dinaa am ay kaawu feebar bi gént gi ma gént xamoon naa ne dinaa gis ay feebar man man man wax rek mën na ko feebarloo nag wax rek démb wax jëm fi yendoo ratatati ratatati lu ne mu dugg ci di su ci jàmbur bu ne a dugg ci ngoog daal ma liggéey bi yëpp moom sama njaay mi na tardé moom ba maa man cantine bii koor gi yeexe sax man damay tëj noppalu ko ak benn yoon dem dëkk ba toog ndax lii dematul bu ma woo mu kii Dut Fall ne woon na dina ma yóbbu dina ma yóbbu dugal wesel waaye dugaluma dara man Dut Fall comprendre ma boobu ba tey maa ngi koy ci wesel. fuñ la fekk yaa ngi wax kebetu rek ah? fekk rek yaa ngi wax rek. yow war nga maa bàyyi man de damaa sokke man man de man ku ma waxoon ne di ma abandonné fii ci dëkk bii ma ma weddi ko. Fatma yow yaa ma mun a bàyyi nii. maa la bàyyi nànk. ah da nga jël yoon bu bees. bu bees tàq. waaw fii de mi ngi nii rek fii man fii nekk ndaanaan ci dëkk bi. waaw ah, ah waaye di ma taral. fii la ndaanaan waaye saa yu fi nga gàddul ma sa bale. waaw loolu ah? fàtte man du ma xas ba def di ma toroxal fii. bu nettali yooyu li ngay def dara rafetu jéeg. waaw bu nettali dangaa nekk sama sama waay te mënu ma laa ba man damaa xamul sax lan laa fii def. ah ah non maa baax yaa ko war ah? ndax fii moom garmi rek yaa ma gën a xam lu fi xew. da nga war a bàyyi lay def ba fàttal yooyu man lu ma xas ba def mu xëyee suba fàtte ko su may nelaw ba yeewu fàtte ndax damaa metti loolu ba ci kanamu yàlla fàtte li nii nga def rek tey def sa zone noire ah, nekk foo demoon ah je nga ko na nduróo ma génnee ndaanaan laa mu ñee nga toroxal nduróo nga ko ah, waa loo may jox jox ma foofu ñaari junni ma téye gëñ ñaar laa sa loxo gëñ nga maa ma ko yow. dana am nit bu bees baax waaw saay ba mu bàyyee toroxal rek. moo ñëwee fi nga ma dina daal ma ñëw waxi toroxal toroxal moom jeex na fi. waaw léegi yow ana kii nokkas. te tante woo ak ah, nii la jaar te yow sa kër nii la. ak ka saf kër ga la newoon bi une di ma waxtaan ak ndeysaan ak ka saf xorom. ñooy. bilaay ga de newoon démb. dama sonn. maa ngi doog a comprendre nag. Hmm. lu xew noonu. dafa xaw a siburu rek siburu yooyu noonu. siburu waaw. ma daa jël lu mu àttan nga yooyu moom da ciy bokk. bëgg a wax foofu dara dara ah lu ma bëgg a wax nag tamit Fatima. ah siburu rek siburu. kër ga dama lay expliquer ah, xam nga xaw ma ko woon ndax dañoo wàccandoo fii ah, ah, ay vingt yooyu. déet waaw mu mu dem de. ah lu ma lay tuumale lu ma lay tuumale. ah yaa naa la waaye mosuma laa nettalil dara. waaw foofu laay lekk man may naa ay tàmba ja ngay keccax de ñëw ba defal ndànk nag moo ko dëgëral sa yaram dëgër masa waaye bu laal bu laal yaay waaw bàyyi sa bu laal bu laal waaw simi sa kaay simi no xas arrêtel waaye bu laal bu laal dama lay yëgal pied bi ay jox mi ah man ndànk rek nga simi sa daal li no ko sa tànk yi mu nooy ah yow kii yëpp a dem toog toog na waaw waaw ndànk rek ndànk ay jox ma saa baam. non kat arrêté ma lii. ah ma xam ne woo Fatima sa xarit bi. ah lay laajte lii. adama gis nga ko. waaye lii lii ñaari kayit yi pour la Fatima xoolal ma fii lii. oui lii ordonnance garab la. waaw garab yu bëri yi sibaru doomu ñu bindal ko àddunay garab. ah mi ngi nii de lii ay garab la. lii nag. bii moom analyse moo def la analyse moom jaru ko moom analyse moom jaru ko non ah, ko jaru ko jaru ko kii feebar. Ah, eh eh eh eh eh bu supp jala ñu lii lan la nii. ba ah, bay mel nii waaw bu gën a attaqué feebar bi day wàcc ci bopp bi te bu wàccee ci bopp bi xanaa da a dese de. wuy ma bàyyi ma la nga jëli garab wala ma dem léegi nii. ah déedéet ñu taxawal bi bàyyi ba suba nga def analyse bi analyse jarul. gannaaw li di xarit bi. nokkoos dinaa ko mën a jënd. mënoo ko jënd feebar bi dana sonal. mën naa xam li ma jot nii. waaw analyse bi nañ ko bàyyi ba suba dégg nga. man indi mën naa ko jënd man sama tànk beeg bopp beeg yëpp ay nekk. am teel AVC. waa teel na lu ne. waaw damaa toll comme yow mën nga koo jënd rek ah. nga ne lii lii arrêté li ngay def. man damay bëgg a wàcc ci man mënuma wàcc xaw ma lan la li warul. mu ngi noonu 12000 xaw ma 500 lañ ci bind li des mooy njëgu garab gi dina la wey 30000 la ñu noonu demal te ñëw wala nga toog ba ci kanam nga xam ma jëli sama bagage. damay maa sama sama gi te ñëw Fatma ma ñëw dégg sinon sama njaay mi day tardé. ma sama te ñëw

ah da nga ñëwati fii daal léegi yow teg nga dil mbedd mi teg nga dil góor man man man man. waaw ah, léegi man sama yoon nekku ci. sa yoon a ngi ci lépp moom la. man ne du moom moom di xaalis ko jox. man la bu sama xaalis la yow kii dafa yor lu mu lekk kii buy tiddi dee. ñàkk fayda yaa ñàkk foo dal a ma ne ah, eh, ma ne a yow yow yow amoo foo eh, ma amul lu a wax a yow ba demal rek bañoo dara laa ko sekkal moom laay wax ba demal rek demal a bañoo dara yow daal lu ñëw nga engagé demal rek demal demal demal ah, demal nga ñëw ñëw ngoon ma ñëw nga iri ma moom moom ma iri woon ne man eh, yow yow a fen ak a créer ak noo ay analyse gi ay ay sa yow foo jëlee xanaa da nga dem ci hôpital la forfa dama ko kii eh, deux mille la eh, eh indi mille francs mais ma ko ma jëndee ah, ma ne woon naa ne mairie maa la yow amatoo naa la di nga semé bi génn sama place bu fi ñëwati liggéey naa la bis ni ndax yow ku kon ah. nga dem nga génnal fii yow saa baay ak saa yaay mën lan yaakaar mun la yow nga yaakaar caga yaakaar la wuyu la bandi la escroc la kala ma nga maa dem ñëw ma sa affaire. ma ne ko xoolal këyit yu mucc yi naa sama baay man la yaakaar yaakaar nañ ko bon waaye dama xaar ba nga ñëwal. ba def ci kaani ba def ci poobar.